xalifa la ñu day fonk démbam ak bërki démbam mooy histoire su ngeen demee ci dëkk tubaab yi moo tax ñu am ay musée nit ñi di dugg ay avion di jógee dëkk dem dëkk pour xool histoire jàng histoire amul benn sénégalais man sama oto ba may egg si léegi nii maa ngi laaj xale yi ma leen est-ce que xam ngeen dëkk bi nu mu tudd ñu ne ma déet ma neen est-ce que mës ngeen dégg talaata ndeer ñëpp tëb ne dañuy wàcc ma leen parce que da di dégg talaata ndeer mais histoire boobu fii la xewee donc fii man suma ma gëm-gëm mooy fii dafa nar a doon un site historique et touristique ñi ñi mën a ñëw ñu mën leen wax dëkk bi lan mooy cosaanam donc Khalifa Sall moom laa lay baaxee beneen bi nag man duma sore ci mbiru xalifa Sall parce que comme nu ma ko waxee ñun waa dakaar Khalifa Sall seen doom la waalo waalo la wante ñun waa dakaar lu tax ñu fonk Khalifa Sall lu tax ñuy topp xalifa Sall lu tax ñu am yaakaar ci xalifa Sall dafa am lu ñu Khalifa Sall ji dafa am lu mu ñu liggéeyal dakaar am lu mu ñu won ci mën-mën ci pas-pas ci Pastef surtout nag ci gëm yàlla ak wóolu yàlla parce que jullit mooy kuy nangu ndogalu yàlla tànk yu Khalifa di dox tey mooy tànki mottali yéene yéene jooju nag Khalifa Sall mu ngi koy am ci deux mille dix neuf bëggoon liggéeyal Sénégal ak liggéeyal ëllëg Sénégal yàlla dogal leneen. ñu ngi sant yàlla nag parce que yàlla ci mbaaxam dogal na ci 2024 bi incha allah Khalifa Sall day bokk. man nag duma wax ci ay waxu mbay du ma wax ci ay waxu yoon du ma wax ci loolu yëpp man lu may wax mooy ci waxu tabax senegal tabax senegal tabax senegal mbokk yi yan lay waxal fu Sénégal di jëm nii du ay fo du ay caaxaan. lu am lu lu lu sérieux la ba yàlla maye Sénégal indépendance ba tey Sénégal li ngi waaj a xam lan mooy naat Sénégal li ngi waaj a xam lan mooy koom-koom parce que tubaab yi nee nañ fii ak deux mille vingt cinq incha allah su ci yàlla àndee Sénégal day commencé exploiter li ñuy wooye pétrole ak gaz pétrole ak gaz. loolu xajul fii ci waxtaan bi loolu ci gàttal lépp ñëpp xaj nañ ci te lépp xaj na ci ci kaw ñaar yàlla baaxee ñu njiit bu am diine bu am yéene ak yërëmande ci askanu Sénégal ak ci ëllëgu Sénégal moo tax wolof Njaay nag nee na saabu du fóot boppam wante su leen joxoñee waa ji ne leen kii xam na état dafa ànd ak sengoor ànd ak Abdou juuf liggéey ak Ablaye Wade te moo ñu tabaxal suñu Dakar fu mu tegoon tànkam fa laa teg suma tànk ba tey am yéene ci askanam am yërëmande ci askanam waa Jongoog te seen doom la wax ci nag bëri na lool parce que tey ak réseaux sociaux yi ku mu neex wax lu ko neex nga njëgal ma ci baat yi moo tax biig xam ma ban dëkk laa nekkoon ma leen dafa amoon mag mu ne ma moytul ma ñaar ma ne ko ñaar yooyu mooy yan mu ne ma moytul ma naafiq bu am baat ak fenkat bu am paas xam ngeen fu may waxee parce que tey dañuy gis toomu gor bëgg ko dëkkaloo fu mu dëkkul lekk ndax lan ndax seen bëgg-bëgg ñun lu ñu tax a jóg du suñu bëgg-bëgg mbokk yi ñun lu ñu tax a jóg mooy Sénégal ak ëllëgu senegal kii su nekkoon bëgg-bëggam rek ko tax a jóg du ànd ak ñun élection locale ba man ma jaar ci falu ci maire man ak suma yeneen morom yi parce que jamono yooyu amuloon éligibilité mu doon bokk ci élection su nekkoon boppam kese ko taxoon jog du ànd ak ay rakkam ak ay doomam ak ay mbokkam di dem wuti ji assemblée nationale. te moom bokkuloon ci élection yooyu mu dugal ci alalam ñàkkam xam-xamam ak lépp te tamit su yàlla dogaloon élection 2024 bi tamit du ci bokk. comme je ko connais nu ma ko xamee da ciy dugal loxoom alalam ak kattanam moo tax tey du ay mbiru Khalifa Sall moo soxlaa déet Khalifa Sall yéene rek la ci am Sénégal la soxla moo tax ñuy sàkku ci yéen ci yar ak teggin ci dëkkandoo ak mbokk ci jàmm ak salaam ngeen jog taxaw xale yi dem retirer seen carte électeur parce que kuy dem ci xare day am gànnaay carte bi mooy gànnaay yi ñu ngi ci deux mille vingt quatre fii ak at incha allah yàlla mën na ci def sutura Sénégal xam lii di développement durable. parce que pétrole ak gaz ku ko yàlla baaxee xanaa nga ñàkk jom wante mënoo taxaw fii di wax ay waxu tali ay waxu lampe ay waxu réseau ay waxu mbay ak ñoom seen suuf si moom macha allah mi ngi fi ndox ci mi ngi fi lu ci des rek mooy xam-xam. yéene yërëmande ak koom-koom loolu mooy kaddu yi mbokk yi di leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf mbokk yi. yoon bii ku fi jaar ba ñëw rek xam ni fii am nañu jafe-jafe dëgg te Sénégal dañu bokk bu loolu weesoo yéen ñëpp xam ngeen ni première usine do mi ngi fii si Lac de Guiers dëkk bii nu muy rëy rëy rëy ñaari borne fontaine la am jigéen ñi dañuy xëy di rang suba ba ngoon pour am ndox te pourtant ndox maa ngi jóge fii di dem ba Dakar usine baa ngi nii suñu wet yooyu jàpp nañ ni xëy na bu ñu falee ki ngay xam ni kii mooy suñu président mu dëkk fii di waalo waalo comme nun mën nañ ci am yaakaar bu loolu weesoo zone bii zone mbay la mbay nag moo yor réew te fan yee bi ñu seetaanee le président Khalifa Ababacar Sall à la 2STV li mu ci wax dafa dal suñu xel ndax li ñu man développé mooy ñu fexe agro business yii ngay xam ne jële nañ leen fële indi jox leen ay milliers de hectares te li ñuy bay dara du fi des fii dañu koy bay rek def si ay conteneurs yóbbu Europe ñu arrêté leen jël suuf bi organiser population bi si ay coopérative wala moo xam ñu jëloo leen suuf bi financé leen ñu bay dundal Sénégal loolu lu mën nekk la. te yaakaar naa loolu rek mooy njëriñu réew mi moo gën ñu jël suñu suuf bi yëpp jox ay agro business ñuy bay di dundal seen réew. donc Lac de Guiers baa ngi nii tout pre yaakaar naa ni xëy na am na benn projet bu ñuy wax préfet Lac bu yegsee war nañ ñu ko digal problème mu réseau nag yéen a ngi gisal seen bopp xëy na yéen ñi ñëpp bu ngeen xooloon seen téléphone bu ñu leen woowee du ngeen leen jot. loolu aussi jafe-jafe la ñu yaakaar ni daal jafe-jafe yi daal mënuñu ko wax mais comme ni ñu ko waxee rek li ñu si ëppal solo mooy développement te développement bi ci wàllu mbay mi la ñi am yaakaar ni Khalifa Ababacar Sall incha allah rabbi le cinq euh, février bu ko yàlla joxee réew mi. bu ñu taxaw waalo bu baax a baax a baax ndax fii la bokk xam na ko salaamaaleykum wa rahmatullah xam nga politique day am gëm. nee na politique day am ngëm. man dama naan gars yi politique ak jaamu yàlla yam nee na politique ak jaamu yàlla ñoo yem. soo ko wéeree ci dëgg. soo ko ci dëgg. ci dogu. ci dogu. ak ci am pas-pas bu rëy. ak ci am pas-pas bu rëy. yàlla mottali. yàlla mottali. man loolu laa gëm. nee que nag lu dul yàlla neen la. na yàlla rek moo tax amuñu problème. nee na moo tax amuñu problème. ci lii nga xam ni moo ñu daloon. ci lii nga xam ni nag moo ñu daloon. moom li mu leen waxul. moom lim leen waxul. mooy. mooy. dafa ñëw tëdd kaso ngir man. dafa ñëw tëdd kaso ngir sama. war woon. te war woon tëdd kaso. te warul woon sax tëdd moo dugal boppam kaso parce que. moo boppam kaso xam nga Barthélemy kenn mënu ko wax kenn mënoo ci wax ci moom dara. lu dul di ko ñaanal yàlla rek. dama ni ko bart tout ce que tu yàlla boo rëccu. yàlla boo wuute. loolu doo nga lañ koy ñaanal moom ak nag xale yëpp gis nga ñi ngi gis fii àndu 2009 la ak léegi wax na dëgg xale yi góor jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp ànd depuis 2009 di dox fii ñu ñëw nag dëkku baax la dëkku teraanga la mais surtout dëkku ëllëg la ëllëg parce que li fi yàlla def su fekkee ñun jox nañu àq ak yelleef li fi war dëkk bii day dem fukki weer a ngi nii ñuy wër senegal jeexale Fuuta ñëw Podor lañ nekkoon ñëw ñu ngi dugg daggana mais réew mi nu mel dafa weesu lu ne ci gars yi dañu def loo xam ne ñun ñëpp dañu am kersa ñun ñuy politique fii yéen ma ko gën a xam yàlla may nañu lu ne fii lu tax nit ñi di am jafe-jafe munu leen liggéey li leen neex mu leen liggéey nu mu leen neexee li leen yàlla joxoon sax muy suuf seeg ndox mi mun leen ci jot c'est ça le problème. engrais <laughs> non non engrais bi engrais bi scandale ji nga engrais beeg ndox mi li nga wax ci ndox mee fi ne ndox munul nekk ci waalo Lac de Guiers di fi romb di dem te suñ dëkk yi du ñu am ndox. ma ni Khalifa Sall président de la pris loolu jeex incha allah incha allah day jeex gis nga yooyu moom bu leen ci sonn gis nga ñaari weer a ci des rek yàggatul gis nga seen suuf seen ndox ak bay dana dellu fa mu nekkoon incha allah parce que suñu bëggee développer suñu réew xool leen réewu àdduna yépp nu ñuy développé woo la ñuy jëkk a mooy di dindool sa xeet ak sa askan fii lépp ngay jéggaani mille cinq cent milliards u franc fa c'est-à-dire milliards nga di ko waññi ba mu doon junni ak juróom fukk la ñuy jënde ceeb ak diwlin c'est-à-dire li ñu lekk te ñu mën fii bay ceeb mën di fi bay gerte soo defee mille milliards junni milliards ci juróomi at ngeen dem seen yoon te incha allah naa ko def man. parce que yooyu du diggaate du diggaate de lu mën ne la lu mën ne la gis nga réew mi moo toll foo xam ne dañuy da nit ñi ñoo waraat nangu seen yëf moo tax li leen barte wax doon dëgg. ci mbirum élection mais man li ma gëm mooy man seen njaboot seen mbokk seen doom su ngeen ma falee incha allah dama leen wax ne fii ak kii parce que ñu bari dañoo ragal sax seen campagne parce que ñi fay ñu bor ñi ñu ngi nangu seen suuf ñi ñu ngi xam nga su leen nit ñi di wax sax xol sax day tooy parce que nag noo mën a tiime sa nawle di ko dundaloo yenn yi ñuy teg baykat yi c'est pas normal donc dama bëgg rek ñun ñëpp ñu d'accord ni fii ñu jëg mën na ne war na ne mën nañ ko gañe mais li tax ñu war ko gañe mooy que ni dañu war delloo si mbay mi sàmm gi napp gi ak nit ñi au cœur du développement au cœur du parce que soo bëggee développer réew il faut que nit ñi gis ci seen bopp loolu mooy xam nga ñun loolu la ñu jàngal ci liggéey xamuñu lu dul liggéey mun mënuñu lu dul liggéey te liggéey bi ñuy liggéey mooy pour que nit ñi gis fi seen bopp moo tax duma digaate mukk ne naa leen du ma leen digaat parce que fii laa bokk nag rus naa fi wax loo xam ne ëllëg dum fi mën dellusi moo tax li ma leen wax mooy li mën ne gis nga mbay mi sàmm gi napp gi fal leen ma rek incha allah ngeen xam kooku moom dama leen koy wax ngir li ñu bokk meen beeg deret gi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 sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin yàlla yàlla boole nangul barkum salaam alhamdulilah xalifa la ñu àndal ñun ñi xalifa la ñu àndal ngir mottali yéene xalifa la ñu àndal ñun ñi xalifa la ñu àndal ngir mottali yéene moom lañ bëgg mag ñi moom lañ bëgg moom lañ bëgg ndaw ñi moom lañ bëgg moom lañ bëgg ndax moom réew mi la bëgg ku bëgg Sénégal Khalifa ngay